président Khalifa Sall il faut que ñu jël ay nouvelles am. va très bien. <laughs> comment est-ce qu'il vécu la présidentielle. parce que voilà depuis lors dégguñu ko. on ne pas ba xam politiquement dafay continuer. Khalifa Sall Khalifa moo doon euh, secrétaire à la vie politique pastoraliste 2000 bi PS di daanu. Mhm. Khalifa Sall moo doon moo nekkoon chargé des élections. mën na rëy gën a rëy loolu. 2007 bi ngi dem campagne présidentielle bi ñu ñaan Tanor day dem deuxième tour. ba Abdoulaye Wade ñaan dina yi ñoom voté mais mbetteel gënoon lu bëri loolu parce que tout le monde pensait que mais 2007 Abdoulaye dafa koy ñëpp toog di xolante. comment est-ce qu'il yi ñoom voté parce que tout le monde pensait que Tanor dem deuxième tour. Mm-hmm. ñu dem 2009 deux ans après Khalifa Sall nekk maire de Dakar. bi bi Yewwi di tas Benno di tas en 2012 les gens pensaient que Tanor allait aller au deuxième tour mais non seulement demuñu deuxième tour mais Niass moo ñu raw un. Mm-hmm. deuxièmement les gens oublient en 2012 on a perdu tout Dakar. loolu bokk na si indi problème indi problème pastoraliste euh, bañ naan waa Dakar yi dañoo saboté campagne Tanor deux ans après Khalifa Sall est réélu maire de Dakar ñu dem on a perdu le référendum donc Khalifa Sall xam na ni élection dangay dem gagné wala nga dem perte tàmm na gagné am na ay ndam am na aussi de défaites cuisantes mais c'est quelqu'un boo xam ne euh, sa vie Euh, politiquement dafa chargé. Mhm. lu bëri dund na ko ci comme ay victoire comme ay défaite euh, injustice aussi subir na ko ñu xañ ko 2012 mais la différence mooy actuellement il prend de lage présidentiel bi yaakaar la woon ci moom. man âge man âge. il a presque soixante na ko. mais Ablaye Wade a été à soixante-treize ans. kii ñu fal tey muy Bassirou Diomaye Faye il a quarante-quatre ans. Mhm. kii ñu fal tey ba ñu nekkee ñun di tamante di saagante naan traître ngaak sàcc ngaak dugg na fii génn na fi anamu moom mu ngi tëdd prison tranquille <laughs> ba heure fa mu falam mhm. donc c'est une question de destin élection présidentielle yàlla mooy fal comme ni ñu koy waxee ko ko gëmul woon war nga ko mën a gëm donc pareegul pour joxe flambeau bi c'est pas une question de joxe flambeau mais ñi nga xamante ne dañu bëgg on a appris à ces élections là que ça ne sert à rien d'avoir des obsessions mhm. moo tax quand le président disait que même si je suis pas trop d'accord quand il dara pour agsi fii mais la dafa toog prison yàlla moo teg schéma teg teg teg ba moom mu nekk président de la République du Sénégal Ousmane Sonko moo porté tous les combats il n'est pas devenu président Sénégal c'est une question de destin. donc Khalifa on va le voir revenir. ya mais mais Khalifa man moom moo xam engagement. parce que doguma la mais vraiment ñi fi nekk actuellement ñu ngi déroulé ah. Mm. dañ koy wax ils n'ont même pas d'opposition. quelquefois dañuy nekk ci réseaux yi tooñ naan nañ joxe idée opposition pour ñu xam ne ñoom ñu ngi opposé wu. juste pour vous actuellement y a y a rien quoi. ñu mel ne yéen soxla nañ leen c'est un d'humilité c'est un manque que tey c'est pas que nit ñi dañuy toog bàyyi leen wu. parce que ils ont été élus légitimement 54 pour cent des Sénégalais les ont élus au premier tour pour la première fois un parti de l'opposition gagnait les élections au premier tour mhm. pour la première fois un parti d'opposition gagnait et les centres urbains et les centres ruraux centres donc c'est une c'est une légitimité qui ne se conteste pas mais ku falu war a ay directeurs nommer ay ministres nommer ay directeurs ils n'ont même pas nommé la moitié des directions tous les présidents de conseil d'administration et de conseil de surveillance sont en place à part l'APIX et la Sénélec avec AIBC. Mhm. ils sont tous en place ils n'ont même pas fait une année budgétaire ils n'ont même pas encore voté de loi de finances qu'est-ce que tu vas aller les critiquer donc la différence entre eux et nous c'est que eux n'ont jamais fait l'État ils rencontrent l'État ils découvrent l'État et tous les leaders qui sont avant et c'est ça la grandeur c'est ça la dignité mm-hmm. politique et eux ils doivent avoir l'intelligence respecter cela maintenant nag le temps de s'opposer ou le temps des combats viendra. politiques euh, viendra ça c'est sûr et certain mais aujourd'hui politique engagement la yow yaay xam fu sa fu sa fu sa doole toll yaay xam fu sa gëm-gëm toll et puis Mamadou Awa élection yi c'est une c'est une c'est une révolution pour nous parce que xam tax on va pouvoir faire face à nos pour di gis ngeen ñi falu ba ñuy tàmbali dañu doon cotiser Mm-hmm. gis nga ñi falu dañuy cotiser finance seen campagne gis ngeen ñi falu amul man maay secrétaire général tel man maay leader diw man maay euh, union de de des partis des con des coordinations xam non c'est un parti où chacun a la même ñu que l'autre ñu am benn conviction bu ñuy meeting amul tendance A tendance B région tel non ñëppay ñëw avec le drapeau national les même couleurs un même leader ñi falu dañu xeex dem kaso booy dem kaso dañ ko gëm mënu leen ko di politique benn nit moo yor poosam lu mu reyul du fa dee benn nit moo yor poosam yor mairie yi leen jàppale emploi utal ma liggéey fayal ma courant fayal ma ndox non c'est fini soit on se réinvente soit on est mort